boppam mu nekk fa ëpp na fanweeri IPRES parce que dafa amoon ay travaux ñu war defaraat immeuble bi borom immeuble bi nekk léegi génnal ndax dañuy defaraat immeuble bi bi mu génnee mu xam ne yoon may na ko bu travaux yi paree moom moo fa war a delluwaat mu exercer ko maanaam mu bindanteeg IPRES wax ne bëgg naa fii bind ñi nga xamee ne ñoo ngànk suñu liggéey muy direction de la pharmacie ordre ne leen man kat maa ngi dem mais bu paree damay ñëwaat dugal dossier de transfert bi nga xam ne approuvé nañ ko donc loolu yëpp bi mu amee moom mu toog di def liggéeyam correctement ah xëy suba ñu ne ñu am na pharmacie bu ñu bëgg jële fële indi ko foofu muy li nga xam ne aussi mas fi am loolu mooy tax ñu jóg parce que moom am na droit euh, ci foofu moom moo fa am droit tant que waxul bëgguma wala condition yi ñu ko teg nanguwu ko moom moo fa am droit te tey wane na ni bëgg jël condition yi ñu wax pour mu loyer nangu na ko donc ak gis ñu lu war a tax ñu bañal ko ko moom di ko nangul keneen direction de la pharmacie bi nga xamee ne moom moo war a organiser pharmacie suñu liggéey war a xool est-ce que ndax lii bu ko benn pharmacien bëggee def jaar na yoon wala jaaru yoon moom moo taxaw tey pour jalgati jalgati weesuwul fi nga xamee ne jox nañ ko diw ba pare mu nekk fa wax nañ ko léegi lépp juróom-ñaar fukki at nga di da nga fiy teg keneen loolu moo tax ñu jóg moom jot naa ay yi ñu ngi ci tey sax fi ñuy waxtaan fi ñuy wax ak yéen fi ñuy wax ak yéen ni euh, le tribunal du commerce convoqué na IPRES pour régler problème bi mais ñun aussi syndicat des pharmaciens jóg nañu jóg ànd ak pharmaciens Sénégal yépp pour xool lépp li nga xam yoon may na ko ñu def ko pour que madame bo delu def liggéeyam parce que loolu la mas a def loolu la xam boobu ba léegi loolu moo tax loolu mo doon taxoon ñu woote tay merci.